تبارك وتعالى وخي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق سنو بروم تبارك وتعالى ميغا خامني لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء dara ump ko ci asamaan ak suuf ak ci diggante bi bokk na ci seede yi kon yow mi mooy yàlla di def lu yàlla di tere xalaatal ca ga ngay nekke bu seede yi yépp taxawee ni mbir sàngam yaa ko def bokki jullit yi bokki taalibe yi wenn waxtu gënta tiis ca àllaaxira ci bu sunu boroom waxee israfil jógal nga wal bëft bi ngir lu deewoon dekk fu ne lu doon dund génne fa di daw wet gu ne am ñu daw jëm fa ak yaramu neen ku ne di daw moroomam ak di ko nëbbutu ndax xàq yi dox sa digganteek moom rabi àll yi jaar nii bàyyima yi jaar ne njanaaw yi jaar fële jinne yi nit ñi lu jaxasoo noonu kenn mënu ko mësu koo gis kenn mësu kenn mënu koo misaal xalaatal bu baax na ngay doone kenn ca ñoom def yaramu neen comme ñoom di daw ak nëbbutu comme ñoom gannaaw loolu nag ñu guur leen ñoom ñépp jëme ca barabu àttekaay ba bés bi mooy yawma yunfaxu fi suuri fataatuuna afwaaja sallallahu taala alayhi wa sallam biñ ko laajee maanaam aaya bii mu yawma yunfaxu fi suuri fataatuuna afwaajan dafa jooy lu yàgg daldi ne mooy sama xeet wi bu ëllëgee yowmal xiyaam daañu leen gurgur jëme leen ca barabu àttekaay ba ñu doon fukki mbooloo ak ñaar yu bokkut mbooloo mu njëkk mi seeni loxo day dagg ak seeni tànk mu ne ñooñu ñooy ñi daawut sàmmoonteeg xàqi seeni dëkkandoo di leen lor di leen def lu leen naqari ba faatu te tuubuñu ko mu ne lii mooy seenu pay tey te sawara mooy seenu mujj sunu boroom moo wax ne wal jéeri dil qurbe wal jéeri junubi wa bi bil janbi ñii ñépp dañoo war warloonteeg ñoom ay àq yoo xam ne dañ leen ko war a jox ku leen ko joxul rek ca groupe bu njëkk boobu yi ngay bokk moom la sallallahu taala alayhi wa sallam wax mbooloo mi ci topp mooy ñi nga xam ne dañuy génne ci seeni bàmmeel ak melokaanu mbaam xoox am ku leen di siiwal ca kanamu suñu borom naan ñii ñooy ñi sàggane woon julli juróom ba faatu te tuubuñu ko daldi ne lii mooy seenu pay tey te sawar mooy seenu mujj ni ko subhaanahu wa taala waxe fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim mbooloo mi ci topp dañuy génn ca seeni bàmmeel seeni biir tol ne montagne ndax fees dell ak i jaan ak i jiit am kuy wote ca kanamu subhanahu wa taala naan ñii ñooy ñi bañoon a génne azaka ba faatu te tuubuñu ko lii mooy seenu pay tey te والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نير جهنم سنو بروم جيل بن درم بو نيتي علال امون ديف نياري الي وي سوارا ني تك fu ne ca seenu yaram mooy fa tukwee biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fa duqu ma kuntum taknizun mbooloo mi ci topp dañuy génn ci seeni bàmmeel ak seeni gémmiñ yu xelli deret ak seeni mbaq aw sawara di jaar ci seeni gémmiñ am kuy woote ca kanam suñu borom naan ñii ñooy ñi nga xam ne daawuñu wax dëgg ci seenum njaay ak jënd ba faatu tutubuñu ko lii mooy seenu pay tey te sawara mooy seenu mujj ni ko suñ boroom waxe inna alladina yashtaruuna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila mbooloo mi ci topp dañuy génn ca seeni bàmmeel di nëbbutu nit ñi ndax xasaw xunn ba kenn mënu leen a jege seenu xet nee ñu mooy raw medd am kuy wootee ca kanamu suñ borom tabaraka wa taala naan ñii ñooy ñi daa mooy di ko nëbb nit ñi te ragaluñ ci woon yàlla ba faatu tutubuñu ko lii mooy seenu pay tey te sawara mooy seenu mujj ni ko subhaanahu wa taala waxe yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allah mbooloo mi ci topp dañuy génn ca seeni bàmmeel ak seeni boli yu dagg am kuy wootee ca kanam suñ borom subhaanahu wa taala naan ñii ñooy ñi nga xam ne dañ daa seede lu dul dëgg ba faatu te tuubuñu ko lii mooy seenu pay tey te sawara mooy seenu mujj mooy walladina yashhaduuna zuur mbooloo mi ci topp dañuy génn ci seeni bàmmeel duñ am làmmiñ seeni gémmiñ di xel li dëtt ak deret am kuy woote ca kanam suñu borom subhanahu wa naan ñii ñooy ñi nga xam ne dañ daa nëbb dëgg gi ba faatu te tuubuñu ko daa tere ku ko seede lii mooy seenu pay tey te sawar mooy seenu mujj mooy li suñu borom subhanahu wa taala wax ne wala taktumu shahaadata wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbuh mbooloo mi ci topp dañuy génn ci seeni bàmmeel seeni tànk takke ca seeni seen seen bopp seeni pëy di sotti dëtt di walangaan am kuy woote ca kanam suñu borom subhanahu wa naan ñii ñooy ñi daa njaaloo ba faatu ko lii mooy seenu pay tey te sawara mooy seenu mujj wala taqrabu zine innahu kaane fahisha mbooloo mi ci topp dañuy génn ci seeni bàmmeel ak seen kanam yu ñuul kukk seeni bët bleu seeni biir fees dell ak sawara am kuy woote ca kanam suñu borom subhanahu wa ñii ñooy ñi lekk alali jirib yi te teguñu ko ci dëgg ba faatu te tuubuñu ko lii mooy seenu pay tey te sawara mooy seenu mujj mooy li suñ borom subhaanahu wa taala wax inna alladina yaakuluuna amwaal alyataami zulman innama yaakuluuna fi butunihim naara mbooloo mi ci topp dañuy génn ci seen bàmmeel ak feebaru ngaana am kuy woote ca kanamu tabaraka wa taala naan ñii ñooy ñi nga xam ne daawuñu déggal seeni waajur ba faatu te tuubuñu ko lii mooy seenu pay tey te sawara mooy seenu mujj واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مbolo mi ci top dañuy génne ci seeni bammel ak seen xol yu gumba seeni bëñ mel ne béjjëni yëkk seen way yéen yi wàcc ba ci seeni dënn seeni lamiñ boqi ko ba tolloog seeni biir seeni biir wàcc ba tolloog seeni poj lu kenn mënta wax di génne ci seen biir ya am ku naan ca kanam suñ borom ñi ñoy ñi da nan sàngara ba faatu te tuubuñu ñuko li moy seenu pay tay ta sawar moy seenu mujj moy li subhanahu wa taala wax ne innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibu mbolo mu mujj mi nak ñom dañuy génne ci seeni bammel seeni kanam melne wéru fukki fan ak ñaar ñom dañuy jéggi sirat gaawe ne melax am kuy wax naan ñi ñoy ñi da jëf lu baax di wattandiku lépp lu bon daa julli jullig mbooloo ba faatu ci njéggal lii mooy seenu pay tey te aljana mooy seenu mujj ak njéggalal yàlla ak ngërëmam ak yërmaandeem ak i xéewalam ndax ñoom dañoo gërëmloo yàlla yàlla gërëm leen sunu borom mo wax ne inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم allati kuntum tuadun bu ñu ñoom mbooloo mu mujj moom yi nga xam ne suñu borom da leen a gërëm daañu fa fekk ci xéewal ak i bànneex loo xam ne bët mësu cee tege xel mësu koo xalaat di ay pale yu taaru lool te rëy ba jéggi dayoo ku ca duggut mënu koo xam di ay jardin yu rafetanaat ay garab yu meññi meññan mu kenn mënta misaal neexaay ba ay dex yu bari te wuute te neex yi cafka ay soxna yu taaru ba jéggi dayoo ñu di leen woowee xóorul ayn yàlla bind leen cig leer ñoo leen di teeru ci buntu aljana kenn ku ne soxna moo koy teeru ñuy ay soxna yu làpp kenn ku ne ci ñoom ab dënnam des ca bindu turu boroom këram ak wenn turu yàlla dañoo leer nañ set wecc ba seeni boroom kër sax ca seenu yaram lañuy seetoo ibnu Mas'ud radiyallahu anhu nee صلى الله تعالى عليه وسلم وخنني بسونو بروم بيندي جنته عدن دا فا واخ جبريل نيكو ديمال خول لي ما بيند غير سما جامي اك سما اولياء وي بسنا جبريل عليه السلام اكسي كين تي حور العين ني نتل генي تي بن بالي دال ديكوي موغ الجنه جي ليپ دال دي لير ناني تي ليرو بنيامي سيدنا جبريل عليه السلام دال دي سجود فساسا غير جاب leerug suñu borom subhanahu wa ta'ala la soxna si ne ko yaa amin allah irfa ra'sak yëkkatil sa bopp jibril alayhi salaam jibril alayhi salaam siggi daldi ne subhaana alladi xalaqaki tudd naa sellu ki la bind soxna si ne ko yaa amin allah ndax xam nga lu tax mu bind ma seydinaa jibril ne ko déedéet mu ne ko sunu borom dama bind ngir waa ji xeex ak bànneexu bakkanam ngir làq ngërëmal yàlla buñ gàttandoo seeni borom kër nag dañuy lëngante yóbbu leen dalal leen ca seeni pale indi leen ay ñam ak i naan yu mësta dugg gémmiñ te saa bu ñu jotee ak seen borom kër dañuy delluwaat jànq bokk na ci xéewal yi